tey ñu ngi fii tey ci monument de la renaissance ànd ci ak euh, site bu mag a mag bi ñëpp di seetaan à chaque fois S people tey ñu ngi fii tey monument de la renaissance gars noo gisee match yi tey bi lan ngay ni waajal. ñaan yàlla may ñu ndam ndam bu rëy loolu rek la ñuy ñaan yàlla. absence su Gana Gueye bi du def dara ci équipe nationale. absence contre on a on a 26 jours là-bas donc absence benn joueur mënu ci manqué dara ku génn sa borom dugg. te ñuy ñaanal Aliou ñu gën a nekk ci ginnaaw loolu rek laay ñaan sénégalais yi yàlla may ñu ndam bu rëy te sedd guy ci match bi incha allah. gëm nga ni Sénégal mën na dóor Angleterre tey. ah gëm nga ni Sénégal mun na dóor Angleterre. ah kon ma fi ñëw gisoo ma gisoo bi ñaar la. man du ma joxe score mais gëm naa ne Sénégal day éliminer Angleterre incha allah. incha jërëjëf tey ñu ngi taxaw tey suñu benn grand grand tey noo gisee match Sénégal Angleterre. Sénégal Angleterre xam nga lan moo ci am grand arbitre sifflé moo ñu tàqale arbitre sifflé moo tee moo ñu tàqale en fait Sénégal dafa nekk at bi ñu nekk suñu at la en fait symbolique la ci football Sénégal donc gars am na ñoo xam ne ñoo ngi dute ndax équipe dina ko def du ko def mais ci kanam tuuti dinañ ci xam dara. absence su Gana Gueye bi lan def ci équipe nationale. le collectif sénégalais est beaucoup plus important que des individualités en fait actuellement a ngi dem Gana bu génnee keneen day ñëw ku dee sa ndey loola fi vous avez confiance en vous daal. mais mais mais sinon pas là euh, non seulement j'ai confiance mais totale confiance à cette équipe et je suis sûr qu'on est capable de battre l'Angleterre et progressivement aussi battre la France c'est tout merci. ñu continuer ak euh, tey télé bu mag a mag bi di sunu people toujours on est au du monument de la renaissance tey sama ko be maa lay ziar. maa noo gisee match Sénégal Angleterre. waaw comme d'habitude rek comme comme d'habitude rek comme d'Afrique bi ñoo fi woon gis nga ne demee woon waaw na yàlla defaat lool rek. mais absence su Gana Gueye bi lan nga ko gisee biir équipe nationale. waaw ah mais xam nga Gana Gueye joueur la mais am na ay yeneen joueurs équipe nationale yoo xamante ne war nañu mën a parce que yaakaar naa Aliou Cissé buy recruter du recruter benn joueur boo xamante ne euh, comme Gana mu gérer poste boobu noonu rek dina am yeneen joueurs yoo xamante ñoom ñooy dañuy fubal même poste que Gana Gueye xam nga dina xaaw a indi benn faiblesse équipe bi mais dañ koy gérer. mais ñu ngi dégg ni Aliou dafa xaw a tawat tuuti loolu lan nga ciy wax. waaw mais dama jàpp ni la waroon demee quoi mais voilà day day baax quoi day baax ama Sénégal moom bu la bu la boo naree am victoire façon bu ne day ñëw façon bu ne day ñëw quoi xëy si moom la datu feebar bi mais mën na nekk ndam si ñun quoi noonu laa ko jàppee quoi. mais yaa ngi yaa ngi bàyyi xel kii di Harry euh, Kane ak Sterling yéen a ngi lay bàyyi xel ak Rashford. waaw mais ay joueurs lañ ay champion lañ ñooñu yàgg nañ yàgg nañ toj football mais tamit ay ay doomu sénégalais lañ lañ lañ la ay gaynde la ñuy footballal fubu ñoo fubuluñu ak ñoo xamante ne newuñu si benn club joueur équipe nationale ñëpp ñu ngi si ay club yu baax donc seen i morom lañ fay nasel tasel yàgg nañ football ak gars yi yaa ngi comprendre yàgg nañ tase si club si Ligue des champions ci Liga di fépp yaa ngi comprendre kon tey jii nii xam nga ñoom ña ngi jàpp ne seen i morom lañ fa nekkal mais africain nag wax dëgg fa yàlla africain tubaab mooy sonn mais du africain mooy sonn si tubaab man loolu laa gis quoi. kon nañ jàpp ni daal Sénégal tey war na war mën a dóor Angleterre. ñoom bañ nañ ba ne ñoom 99 pour cent lañ jox seen bopp jox Sénégal 1 pour cent boo fàttalee ko France Sénégal France Sénégal 2002. français yi la lañ doon wax senegal ay gâteau ngeen fubalu ñu wax ay sénégalais ay gâteau la ñuy fubalal dañ leen jàpp def leen ay gato la woon la foofu noonu mooy nekkaat parce que ñoom dañu xeeb ba jox ñu pour sant bu match bi tàmbalee dañ xam ne seen 1 pour cent boobu dañoo juum. incha allah ginaar googu moom baxaloon ne ko boobu noonu tey ñu ngi waat encore ak euh, benn grand boo xam ne sunu mag la. tey ñu lay laaj tey match yi Sénégal Angleterre lan nga ko gis. waaw Sénégal xanaa di ko ñaanal dem kese parce que man équipe comme équipe bi ñun gëm nañ ko quoi man gëm naa équipe bi booy talent bi ñu am partout dans le monde nañ wane ba ñëpp gis leen comprendre nga ils sont ils sont dans les meilleurs clubs du monde actuellement ñu ngi ay zéro nekk Paris Marseille fépp comprendre nga ñoo bokk niveau ñu ne gars yi rek c'est ce gars yi sont des Anglais nous sommes des te gis nañ fi 2002 c'est la France Suède Danemark Uruguay ñoom ñëpp danañ jàpp danañ tas vite fait. affaire bi noonu lay demee rek tur bee fi nekk rek mais tojul fenn boo xoolee mm. n'a jamais été champion du monde amaana am na ay joueurs yu am talent ay Fodor gars yi sër lañ kon li nga gars yi di waxee mais on a Sadio Mané on a Ismaïla Sarr am nañ ne même niveau lañ toll ak ñoom quoi. absence su Gana Gueye bi yow la nga ko gisee si bi dina dina métti trop si milieu terrain. Gana Gueye amaana Gana Gueye tam solo nañ ko mais xoolal absence su Sadio Mané naa joué wul benn ñu ngi percé a dayee ak Gana Gueye bu génnee am na ko la remplacer on a l'effectif am nañ équipe complète Sénégal macha allah équipe bi moom xoolal amul lu ñuy jooy amul lu ñuy jooy. kon mën nañu jàpp ni Sénégal am na ndam tey si kaw Angleterre amul problème tey tey tey tey tey tey Big Mo Big Mo match Sénégal Angleterre la nga gis. waaw d'abord ñu ngi leen di nuyu voilà di nuyu seen internautes yëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan ni ñu ko gisee mooy am nañu yaakaar ni euh, dinañ ci am ndam parce bi ñu yor baax na voilà donc euh, am yaakaar daal ci équipe bi ñu gagné ko. pour la première fois aussi ñu gagné coupe du monde sax indi ko Sénégal mu dugg Afrique lu musul mais absence su Gana Gueye na nga ko gisee ci tey match waaw forcément dinañu manqué parce que ñëpp xam nañu ni grand joueur la te baax na trop ci poste bi mu nekk mais comme am nañu ay plus de vingt et quelques joueurs donc dina am koo xam ni tey dina jël place am donc te xam naa ni dina fa def euh, voilà lu lu leer quoi. ki ki jël place su Gana est-ce que jàpp nga ni kooku moo gën a miin anglais yi sa euh, Gana Gueye moo gën a miin anglais de. waaw loolu am na voilà loolu am na mais xam nga tey benn affaire dafa am comme coach bi moom. mooy ki nga moom moo yore bi di euh, classé moom dina xool nu muy tegee donc classement boo xam ni am nañ ci yaakaar ci classement boobu que ni dina nekk classement bu am solo boo xam ne après gars yi dinañ gagné quoi incha dina baax. Aliou Cissé feebar na de loo ci wax. waaw mais doomu dafay tawat parce que nit moom ñëpp xam nañ ni feebar ak wér moog doomu aadama ñoo ànd mais loolu dara yàlla baax na dinañ am ndam incha allah. dégg nopp gars ñu ne Aliou Cissé feebaram am ko parce que li ma gis mooy que fi parce que depuis 2015 mi ngi yor équipe bi euh, dem nañ fi final 2019 euh, ak Algérie ñàkk ko. am na ay match yu ñu dem de poule voilà donc ay compétition yoo xam ne duñu génn sax euh, sax si match de poule yi donc tey ñu dem ba gagné Coupe d'Afrique pour man fi mu jógee moo gën a metti man yaakaaruma loolu waaye de 2002 à 2022 gisoon ni Sénégal créé na fi benn histoire bu rafet de 2002 à 2022 mais ça c'est vrai parce boo waxee dañuy yóbbu ci euh, Sénégal France yóbbu ñu ci Coupe du Monde ñoom El Hadj Diouf ñoom Khalilou Fadiga donc équipe boobu noonu donc loolu dafa leer 2000 2002 2022 Sénégal def na ci lu lu yéeme ci football voilà. yàlla na yàlla may Amin merci beaucoup jërëjëf. Mamadou est-ce que kon duñ bàyyi téléspectateur yi ñu seetaanaat ba ci kanam comme ça wala ñu dem ñu dem ñu dem wëri waa ñeneen. ay jakaay topp ma. comment vous allez. ça va bien. yéen a ngi si jàmm. ñu ngi si jàmm. match Sénégal Angleterre lu ngeen gis. ah. match Sénégal Angleterre lu ngeen gis. ah 2 2 1 xanaa. daa 1 lañ bëgg gis. 2-1 ngeen gis. waaw daa jàpp ngeen ni yéen jàpp am nañ si yaakaar bu baax. ah yow nag. man de say bu ne damaa tiit. da ngaa tiit la ngay tiit. ah yàlla wóorul moom. ah Angleterre mën nañ football. waaw ah, mën nañ football moom mais ñun dañu si bopp rek. yow Sadio ah, Gana Gueye joué loo si xalaat. Gana Gueye ah woo ñeneen ñeneen nañ def rek nañ gagné. ñeneen ñu def effort rek. ñee. ñeneen ñu def effort rek. ñeneen ñu def effort mais changement de moo euh, Gana Gueye moo gën a miin anglais yi de. ah ñeneen mais même bu Gana Gueye am na yeneen joueurs fa nekk ñun am nañ confiance ci ñoom. yeneen joueurs nekk ñu am na ñoo xam ne championnat Angleterre am na ñoo xam ne am na ñoo mais Gana Gueye moo gën a miin anglais yi. waaw même bu gën a miin ñoom Jacob si ñu ngi fi ñoom Jacob si Kalidou Koulibaly mu ngi fi am nañ yaakaar si ñoom mais xam nga ni Angleterre dafa yor ay attaquants yu dangereux. waaw ñun tamit suñuy attaquant tamit ñun am nañ confiance si ñoom Diallo mu ngi fi. waaw baax na kon merci. yàlla na Sénégal am ndam. Vous parlez pas. Ça va monsieur Ça va ouais. Vous allez bien Ça va, tranquille. Comment tu trouves euh, le match de Sénégal-Angleterre aujourd'hui J'espère que le Sénégal va gagner, franchement. Tu l'espères Bah, juste, mais. Ils peuvent, ils peuvent y aller, ils peuvent, ils ont les moyens. On dit qu'il y a des attaquants très dangereux en Angleterre. Comment On dit qu'il y a des attaquants très dangereux en Angleterre. Ouais, mais tous les, je crois que tous les Sénégalais ils ont joué en Angleterre déjà, donc pareil, ils se connaissent entre eux. Donc je pense... On a vu que le, le, Sénégal est beaucoup confiant que les Anglais. Bah, je pense que c'est la confiance sur le terrain qui va jouer avant tout. Je pense qu'ils vont les éclater. Moi, je, je pense... Tu pries Dieu que pour le Sénégal remporte cette Coupe du Monde. Tu pries Dieu pour que le Sénégal remporte cette Coupe du Monde Ouais, franchement, ce serait bien. Ouais. Mais Ganege, il ne sera pas sur le terrain aujourd'hui. Comment tu trouves ça Comment Ganege, il ne sera pas sur le terrain aujourd'hui. Comment tu trouves ça Je pense que c'est un choix de euh, l'entraîneur. Peut-être qu'il essaie de le réserver, il va peut-être le rentrer plus tard. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Ok, merci beaucoup. Comment tu trouves le match d'aujourd'hui Quoi Comment tu trouves le match d'aujourd'hui Bah on espère que le Sénégal va gagner. Ils ont toutes les armes pour faire des belles choses aujourd'hui. Donc on que ça le faire. De le Sénégal a créé une belle histoire. Ouais, ouais, C'est historique ce passe. L'Angleterre, c'est jouable. Il peut tout passer en phase d'élimination directe. Ça va être la magie. Et, eh, l'absence de Ganegay, tu trouves quoi L'absence de Ganegay. Ah, ça va être compliqué. C'est l'absence de Sadio Mané, ils réussi à au-delà pour faire des grandes choses. On espère que ça va continuer. Donc c'est le Sénégal qui on espère, et on espère euh, vous, vous retrouver en quart de finale. ok, Amin, Inch'Allah. Bon, ñu bàyyi gars yi ñu commencé suivre match bi parce que match bi daa mel ni léegi mu waaj a commencé de. match bi daa mel ni léegi mu waaj a commencé de. Comment vous allez, monsieur Allô, allô, allô. Vous allez bien